asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 18 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yëglikaay yi nag tey jàppal sunu lamb Leewtoo point net Leewtoo TV ba ca Lutte TV bi ñu xëyee fu nekk daal fekk nañ fan lu jëm ci mbirum làmb bu dee yëglikaay bi nga xam ne nag moom moo di sunu lamb la tey dafa xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo di Ama Baldé waaye ki nga xam ne tamit moom moo di Lutte xëy na ñëw ci vidéo boo xam ne tamit Ama moo fay wax Ama nag la muy ne ca Lutte TV daal lenn la nee na leer ba leer moom kenn du ko sacrifier du nekk koo xam ne daal moom la ñuy def nagu sarax déedéet xalaatee su ko wala ñu koy kompaloo ama neen xalaatu ko tey tey suba waxi noppi mu mel ni ki daal moom fi mu nekk nii moom la mu bëgg bés ko ko defalul ci kombaam du ko jël tey di ko bëre suba waxi noppi moom Ama Baldé ñu ngi ko fekk fa nga xam ne moom moo di ca Lutte TV mu fay wax bu ñëwee ba tey ci fi nga xam ne mooy journal sunu làmb Ama ba tey mu ngay wax wala boog yëg likaay bi na daal boo sàgganee dina am beneen promoteur boo xam ne nii dina ko jël wala boog ñu jël ko mu yeneen i promoteur yoo xam ne ñu ngi koy wër wagaaj wala dox ca suuf ngir jéem koo tëgg mu mel ni ñu ngi cay sax yokk lañ ko fayoon am na ci ñoo xam ne wala am na ca koo xam ne moom proposé na ko 90 millions am koo xam ne itam yegg na ci 100 millions yi mu mel ni ki daal kon Ama de daamel ni combat boobu daal fi mu nekk ni moom loo ci mën a dégg am na ñoo xam ne ñu ngay jëf-jëfi ndaw ruudu di jaar ca suuf ngir bëgg koo jël tëgg ko sunu làmb ba tey moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki fi mu nekk nii daal kon Ama Baldé am na yeneen proposition yoo xam ne moom proposé nañ ko ko muy 90 millions ak 100 millions sunu làmb nu ko wax waaye bu ñëwee ba tey ci sunu làmb jàppal ki nga xam ne nag moom moo di Gris Bordeaux yëglikaay bi nee na day négociation yi nga xam ne ñu ngi koy defal VIP maanaam di leen proposé ay combat mu mel ni ki bu dee nëb course la moom Gris Bordeaux daa mel ni course ba dafa dem bàyyi ko wala dañoo mu nekk en retard loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko ci loo xam ne daal maanaam daa mel ni gars yi dañ koo xaw fàtte loolu sunu làmb xëy ñëw wax nu ko ñi xam ne moom kenn fàttewu leen wala bees leen fàtte tamit fàttewuñu seen bopp mooy waa écrit yoof sunu làmb ne na li leer ba leer ndeke classement bi ñu doon def ci écrit yi nga xam ne ñoo jiitu ci ay résultats yu baax kon sunu làmb door ba yoof la daa mel ni ñoom ñoo gàddu mbir ma dem ak moom mu mel ni ki nag mu ja moo tax muy wax nee na le 21 décembre bi nga xam ne day ca la war a joxe sunu lamb door ba muut ja daa jàpp ne bés bu historique lay doon fi nga xam ne nii day moom moo di ci moo di yoof waaye tamit ci yoof ci boppam nag nekk na loo xam ne daal lu nar neex lay doon ci ñoom mu mel ni ki tamit ka ñuy wax baytiir sàmb di président yoof moom tamit yëglikaay bi wan nañu ko wan ñu ka xam ne nag wala ñi nga xam ne ñooy mbëri yoof Malick ñanga nga ca kaw muut ja jabel sekk ndaanaan saamu yaboy gin bu yoof ak ki nga xam ne moo di loobu yoof mu mel ni ki daal waa yoof ren moom kon ñoo sànni karawaas jiitu ñëpp te kenn jotu leen waaye loo ci mën a dégg daal kon jàppal yoof moom jël nañu mbir ma yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi wax nañu ko muy ab réunion boo xam ne day war naa am tey war a dox ci diggante promoteurs yi ak ñi nga xam ne nii day ñoom ñoo di waa làmb ji muy waa CNG ba moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day alterné tey jii moom bis bu nar a màgg lay doon buñ ca yeggee fa nga xam ne nag mooy ca CNG ndax nag réunion ba daal yaakaar nañ ne ah buñ ci jógee ay mbir dina saafaru wala boog ñu dem ci leneen leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne yëglikaay bi dafa ñëw ci moom muy ki nga xam ne nii day moom moo di caat bu école booy bambara caat nag am na ñoo xam ne daal nee na ñooñu ñoo ko tere nelaw te takku seenu fit ñëw dajeek moom ñu bëree mu mel ni ki nag ka ca jëkk moom moo di ki nga xam ne moo di amet dem bu caaro yi musa Dioum bu parcelle ak Diène Kayre bu Soumbédioune caat daal ñii la wax ne daal làmb ñoom la ko booleel li ñu war a def nag muy ñëw bëree ak moom caat bu booy bambara moo xëy tey di wax loolu leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy diggante petit baboy ak ki nga xam ne nii day moo di BM yëglikaay bi nag na ñoo nar ubbi saison bi de le 24 novembre bii nu jëm ca stadium ba nga xam ne moo di Iba Mar loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dina ko wax mu mel ni tamit fàllu ngom ma nga xam ne moo yor ki nga xam ne moo di BMW daal la mu nar mooy mbërëm moom attaqué dem ci kaw bëre loolu la nar def maanaam daal xaar moom naruñu koo def yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax bu ñu demee nag fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV moom li leer ba leer daal bala Balla Gaye deux lañ fay fekk ak ngénteem ak rakk ja Sathiès ngénte la nag daa mel ni ki daal ña fa teewoon bëri na waaye rakk ja Sathiès moom la mu waxte ñëpp dégg ko mooy diggante ak Eumeu Sène la wax ci Leewtoo TV nee na daal bu Boy Niang taxawee di laaj Balla Gaye Ama Baldé Modou Lo ñu koy wax kon moom Sathiès itam yoon la mu bëre ki nga xam ne moo di Eumeu Sène moo tax daal moom ne na Eumeu rek la teg bëtam Sathiès moo xëy foofa tamit di fa wax keneen koo xam ne tamit mën nañ ko faa fekk muy fi nga xam ne nii day moo doon ca ni ki foofa li leer ba leer daal bu ñu demee ka ko jël moom moo di ki nga xam ne nii day moom moo di Mamadou Seck moom nag moo daan ngeel jon ci final boo xam ne une minute la def bu ñu demee fa nga xam ne tamit mooy jël Leewtoo point ba tey fa nga xam ne moo doon ca film la làmb ja amoon jàppal ka nga xam ne nii day moom moo ko gagné moom moo di selemele ci kaw ki nga xam ne nag moo di ordinateur waaye la doy waar mooy demi final ba moom ka mu dajale diggante général Malika ak ki nga xam ne nii day moom moo di ki nga xam ne moo di ordinateur waaye ordinateur moom moo ko daan ci demi-finale ba loolu la def général dëkk ba di toj yëglikaay bi di Leewtoo point mu xëy ñëw dina ko wax leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne mooy ca Leewtoo point net muy aw tiis muy Pape ja di Maggi Bombardier ji nekkoon manager am ñu bokk ndey ak baay moom nag mu wuyu ji boromam démb ci dimanche ji ci guddi yëglikaay bi di Leewtoo point net moo xëy ñëw dina ko wax mu mel ni ki nag ñu ngay indi ci moom ay seere seere ya nga xam ne daal Pape Dia nekkoon na nit koo xam ne am na yar ami teggin joxe woon cër lool Leewtoo point net lañ ko jàngate Thierno Ka moo tax mu ngay indi ci moom ay seere nee na moom seqoon nañ loo xam ne nii day dafa dem sax ba dépassé mbirum làmb ak yu mel ni ki noonu waaye seen diggante dafa déggoon ci koo xam ne daal xaritam la woon personnel loo xam ne dañ ko daan waxtaane sax te du bokk ak làmb Thierno Ka moo xëy di wax lool ci ki nga xam ne moo di Pape Dia ñun nag li nu xam daal mooy nu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko te xare ko aljana barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax nag olof Njaay moo ko wax yàggamaar maar buñ ne laa yaru nga te muy dëgg jàppal ne am nga gàllaaj waaye buñ ne dangaa réew te muy dëgg jàppal ne les la jiñ yow a te nag lu ne mën na laa arrivé kon yàlla nañ yàlla defal ab yar barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Pape Dia na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mook bépp jullit bu nekk ci suuf si barke yonent bi sallallahu alayhi TV ñu leen di nuyu leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak bi la ziar. di la fay di la ziar di nuyu internet yëpp à travers le monde di leen di ko saaxu ci ñoom di wax ne saa suñu ren rek suñu xëyee ñu ngi leen di namm di leen safoo. loolu am na solo Babacar ñëw nag ak sunu laam sunu laam te dafa xëy ñëw nag si négociation combat VIP nee ñu VIP daal ñu ngi dégg ay combat yu nekk mais daal dafa mel ni Gris Bordeaux daal Euh, nekkul si tablette yi nga xam ne moom mooy euh, promoteur nekkul daal si si combinaison yi. maanaam waxaale wuñ ko bu doon marché la daal maanaam waxaale ba moom moom bokkagu ci waaw loolu day su dee am na yaakaar naa daawul am bu amee itam xaw ma lan moo ko war a mën parce que li tax mooy euh, Gris Bordeaux moom yaakaar naa ne ci làmb bokk te am na lu mu ci wane. yaa tey muy tëdd dafa lóogari face te naa itam ku ne gis na ci côté mobilisation saa yu bëri di nga gis mobilisation bi muy indi kon yaakaar naa ne xëy na ah, buñ ko négocié wul am na lu lu lu ko waral. waaye nag comme li ñuy wax rek promoteurs yi moom ñoom ñooy tëgg làmb ñoom ñooy xool combat yi nga xam ne nii wala mbër yi nga xam ne nii intéressé na leen ba pare intéressé amateur yi waaw ñoom nag ñoom bu ko defee ñoom ñooy démarché mais Gris Bordeaux moom même bu ñu ko démarché wulee li ma xam daal mooy que ni war na bokk ci mbër yi nga xam ne ren dañoo war a bëri parce que daaw yaakaar naa dafa def année blanche bëriwul daaw te comme am ak Ama a nekk diggante ak Lac de Guiers 2 war a nekk parce que Gris Bordeaux beneen nouvelle bu nga xam ni waa sunu ko mooy euh, li nga xam ni mooy sunu lamb door nee ñu li nga xam ni mooy euh, écurie Yoff mbooloo bu Mbodja ñoom ñoo gagné euh, te trophée sunu lamb door boobu te remise bi nag le 21 décembre incha allah. waaw ñu ñu ñu leen ci félicité ñoom waa écurie Yoff di ci félicité Yoff waa yëpp ak fu ñu mën a nekk parce que tamit loolu yombul parce que écurie yooyu yëpp nekk nañ écurie yi nga xam ne yàgguñu judd ñu lay wax ay sunu lamb door ñu naan la daaw doo doorate ko gagné décret bu yàgg a judd ren bu ñu la yoof la décret bu yàgg a judd mais li am solo mooy liggéey bi boo liggéey rek am résultat parce que am na gi leen fi jiitu kon ñoom tey bu ñu ñëwee ba bokk bay nekk premier di jël suñu làmb door defe naa kon loolu ñu ciy félicité waa yoof yépp ñoom Modou Dia Malick Niang gin bu yoof ak champion yu fa nekk yépp parce que tamit boo xoolee daaw saison bi moom da nga xam ne yoof def nañu résultat yu baax a baax neexoon tamit gis nga jël ba mu ko daan ak yeneen ak yéen ñu gin bu yof ñëw daan tonel bokk di Ndakaaru ñuy ay xale yoo xam ne tamit wala vraiment ñu ngi liggéey liggéey nag li tax mu avancé ci bu ngeen nekkee nekk mbooloo mooy ngeen joxante seen ay nekk benn parce que li may wax rek yu ndaw yi li tax des fois mag li ma seetlu que moo tax ñu gën a avancé écrit yu mag yi mooy que ni ñoom dañuy daje di liggéey écrit yu mag yi nag pour man ñoom dañu jàpp ne ñu nga au sommet seen i mbër ay VIP la ñu moo tax dootul dajaloo di liggéey li ñu war a liggéey loolu nag su amulee du am résultat positif parce que benn mbër benn benn VIP rek na ci écrit daan benn combat ñu ne écrit bi parce que écrit bi day am relève boobu nag li tax ñuy mën a am résultat positif mooy que ñuy daje di liggéey ensemble kon yow félicitation euh, proposé nañ ko 90 millions keneen ki tamit beneen promoteur euh, proposé na ko 100 millions te moom nee xam nañu moom il sera pas l'agneau du sacrifice maanaam daal kenn du ko sacrifier contre Modou Lo. maanaam du nekk nagu sarax wi quoi moom la Ama bëgg a wax waaw loolu day dama yaakaar ne moom su ko waxee mm, dama foog ne est-ce que noonu maanaam est-ce que dafa dañ ko bëgg a def nagu sarax yaakaaruma loolu man dama jàpp ne promoteur moom mooy ñëw. bëgg ko mbaam parce que dañ ne woon moo ko Modou Lo war nañoo bëri promoteur bi di Luc Nicolaï di promoteur di tëgg lam ñëw domaat sa combat bi juboo ak Modou Lo fay ama kase waa kër ama loolu duñ ko jël ñoom 100 millions ñuy jël foofu nag yaakaar naa ne pour man saraxe nit wala sacrifier nit est fa xaj foogu ko mais li am solo am solo daal euh, mbir yi moom marché laa ko tuddee rek yaa ngi dégg ku ne da nga yor sa njëg di waxaale ku ne yaay la la gënal bu fekkee tamit comme noonu mu ko wax am na yeneen promoteur yu ñëw fay ko li ëpp li ko Luc Nicolaï fay na dem bëri li ñoom parce que bu dee loolu ko gën a arrangé na dem parce que mbir mi c'est la maanaam démocratie la kenn du kenn ci lenn ama nag bëri la bi nga xam ne defe naa muy def année balance gënut ci làmb parce que li tax mooy mën na làmb macha allah doomi mbër la te saf na mbër parce que waykat ba Youssou Ndour da ne woon doon sa baay doon sa baay ko gën moom maanaam du xam nga ndono bi mën nga ko doon kese mais moom da ko doon ba pare mais dafa am lu nekk ci moom mooy bu duggee si làmb nga xam ne mbëri ñëw na su fekkee nga xam ne mbëri ñëw na su àddu suuf tamit nga xam ne mbëri ñëw na loolu kon defe naa mbër mu mel noonu di xale nag ak ful bi muy drainer bëgguñu muy def année balance ñun mu mën a dem fee bi bu amoon adresse Ngol waa amal naa tëb ko mise 1 million ki nga xam ne mooy moom mooy seet moo ko jël si kaw ki nga xam ne mooy Ngel John Babacar. waaw ñuy félicité moom bu seet boobu di encouragé Ngel John parce que làmb noonu la làmb simple bi comme li ma la waxoon rek mu ngi dox parce que chaque weekend di nga dégg ñu ne teg nañ fi million teg fee 2 millions teg fee 3 millions ça veut que mooy luy dox la kon ñu félicité tamit waa Amalda yi nga xam ne ñoom ñoo ko tëggoon parce que simple bi moom mu ngi ci yoonam tamit di dem bu baax a baax fi mu nekk nii. suñ jógee si euh, toujours nag si Leewtoo point net suñ jógee nag fi nga xam ne mooy adressé mooy dem fi nga xam ne mooy Fimela foofu nag euh, euh, population Fimela bi ñoo tegoon foofu benn mise 1 ki nga xam ne mooy Sélé Mélé moo ko jël si ki nga xam ne mooy ordinateur. demi-finale ba tamit neexoon na trop diggante ordinateur ak ki nga xam ne mooy général Malika finalement ordinateur moo ko daal. waaw loolu lay wax ne lambi simple mbëri dañuy daanante rek dañuy daanante tax gis nga diggante Sélé ak ki nga xam ne mooy ordinateur euh, wala boog diggante général ak ordinateur vote bi ren ci meilleur lutteur bi ci at bi jeex oh, général moo ne ca kaw si Sélé kay ñëw ci ginnaaw ordinateur gis nga démb ñu finalu film la demi final boog di moyes euh, ki nga xam ne mooy ordinateur daan ko moom dañuy daanante mais di féliciter Sélémé la moom tamit parce que gis nañ ne que ren ay sortem yi mu jëkk def yëpp da ko ñàkk yaa ngi dégg mais olof a ko wax bu yoon jeexul waaxu sul du jeex te mbir mi moom buum la rek booy xëcc rek lu mu teng-teng dina ñëw rek bu yàgg dina ñëw kon final yi perte na fi ay yoon Dakar mais gis nga dem na Fimela gañu fi un million kon daal di féliciter di nuyu tamit waa Fimela parce que Leewtoo TV xam ne ñëpp dañu koy seetaan di ñu waaw Babacar ñu jeexale nag ak euh, Leewtoo TV dem euh, bëgg dem ki ngi demoon nañu fi nga xam ne mooy géej waaye si ñeenti Balla Gaye am na waxtaan lu yaatu boo xam ne sekk na ko fa ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès di rakk waaw Sa Thiès fekk nañ ko démb ca bërki dem si ngénte la waxtaan ak moom ci wàllum làmb waaye moom nag bëgg-bëggam nëbbu ko mu mel ne Eumeu Sène la soxla ci làmb actuellement ñu ne ko mën a laaj ko saa loolu foo ko teg ndax Eumeu seen war na laa jël ci làmb wala ay est-ce mu ne du loolu parce que moom li mu jàpp mooy bu fekkente ne Sa Thiès wala boog Balla Gaye ñu ngi koy wax di wax booy Niang di wax Ama Baldé di wax Modou Lô moom jàpp moom itam kon c'est normal mu bëre ki nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène saa la gis ren nag li ba xam benn seetlu bu ma def nday kumba ci at bi ñu saison bi ñu ubbi nii maanaam xale yi dañoo sëkkatal ren mag ñi Eumeu Sène Sa langal na ko ko Ama Modou Lô langal ko ko booy Niang langal ko Balla Gaye numéro 2 Reug Reug langal ko Bombardier yaa ngi dégg guy gi langal ko Gris Bordeaux mu mel ni ki kon rem maanaam ñoom li ñu bëgg mooy grand contre petit maanaam loolu la ñu bëgg te Tapha Tine itam ku ne xam ne ne Malick Niang foo ko dékkee micro mu ne dafa xaw ma nag luy xew am na nag benn grand contre petit bu mooy Papa Sow ak Siteu waaw. Babacar ma jeexalee nag ak nouvelle bu tiis boo xam dal na si ak lu làmb muy génn euh, àdduna ki nga xam ne mooy nekkoon aussi manager. démb la gaañu fee si hôpital régional bu Mbour ñu koy jaalee mbokk mbokk waa làmb yëpp particulièrement Bombardier ak waa famille am wax ne xam ne xëy na tey euh, liggéey moom tënk rek may xol yi dara suñu xol yeeg yëpp mi ngi mi ngi muur euh, di ko jaale ñëpp ñi nga xam ni mooy famille am démb li ma jot sa ay kudd fil xamul xawma nu mu toll dafa ne woon mel ni man maa amoon dëj bi c'est normal parce que relation yu ma am ak famille boobu la leen wax di leen masawu di ko di jaale aussi jabaram di jaale aussi famille Dia yëpp nekk foofu si si château. waaw loolu moom dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek waaw yàlla moom ay waxam du dañ moom moo ne ah ku juddu maanaam da nga da nga dee yàlla na yëqte bi ñëw fekk ci lu baax lu tooy di nga wow loolu waxi suñu borom la kon defe naa ñiy dem dama naan ñàkkuñu fu la ñu fi desit fayda bàyyiwu leen fi Pape Dia nag ñu ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana di ko jaalee rakkam Bombardier mi nga xam ne mbër la nekk exemple si làmb mais tamit di la ko jaal comme li nga wax sànq rek dafa am am relation bu ne da relation d'amitié day am ci diggante te yaakaar naa ne yow ak Bombardier Pape Diak seen famille am nga xam ne ko jaale di ko jaale ne tamit yaa ngi di doomu Sénégal wala nga nekk si làmb di ci yëngut parce que Pape Diak nekk na ki nga xam ne tamit exemple la ci li mu doon def en tant que manager mais ku daan représenté waa Mbour ci côté euh, management yu mel ni kii noonu yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko parce que li am solo daal mooy yar dafa am solo te defe naa moo ko rakkam ci làmb ku ne xam na ne bañ nekkee ci làmb ba tey yàgg na bañ naan Bombardier benn at a ko desi mais mosuñu dégg fenn ñu wax wax boo xam ne dañ leen ciy loolu nag li koy waral mooy nit ki ab yara koy indi suñu papa dugg seeg nag yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram daf daan wax ne ah ku la neeti maa la gën nee ko ku la yar Bombardier buñ ne yaru na ñu ñoo gis magam Pape Dia mel noonu kon ça veut dire loolu foru ko mais lu mu ko yarale ci kër mu ñu indi ko kon loolu mooy àddina wal na ko yàlla yonente jégal ko barke mu dib sallallahu alayhi wa sallam